wa ala alihi wa ashaabihi wa aswaajihi wa zurriyatihi ajmain wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi diin mbokki jullit yi ñoo ngi leen nuyu baax di leen siyaare di leen baalu xaq di leen baal xaq di leen ñaan di sàkku si yéen ñaan di siyaare mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel si bii di Mbacke Kadior TV di leen ñaan yàlla suñ boroom aar leen sàmm leen waxtaan wi nga xam ne nag moom lañ jagleel émission bii di waxtaan si diine tey ñu ñëwaat ngir soññant rekk ci wàllu wu am solo ci diine nga xam ni munta ñàkk ci ab jullit walla munta ñàkk ci nit ku bëgg àgg ca boroomam fu kawe ndax ngir nga mën a àgg ci sa boroom dëgg-dëgg danga koy xam door ko mën a jaamu ba man fa àgg ndax nii taarifuni qabla an taabuduni fa in lam taarifuni fa kayfa taabuduni yàlla suñ boroom wax na si hadiisul xudsi ne xam leen na bala ngeen maa jaamu ne bu ngeen ma xamut ana naka ngeen may jaamoo te ngeen nga xam yàlla dëgg dëgg dëgg da doon boroom xam-xam te boroom xam-xam jàng mooy tax nga doon ko ndax yàlla suñu war a wax ne ci alxuraan ne innama yaxsa llaha min ibaadihi ulamaa maanaam eh, ñi nga xam ne nii ñooy ñi gën a ragal yàlla dëgg dëgg dëgg mooy boroom xam-xam yi te loolu li koy waral mooy dañuy xam seen boroom door koo mën a ragal ndax nit ki bu xamut mbir munta ragal loola bu xamut mbir munta ñeme loola force nga xam mbir xam dayoom ak martabaam door a mën a xam nag lii mooy lan te suñ boroom boo bëggee dëgg dëgg xam suñ boroom force nga jàng xam gém koo xam looloo tax nag xam-xam di lu am solo lool di loo xam ne ki nga xam ne moom la suñu borom dénk xam-xam munta ak ki nga xam ne nitu euh, nit nitu nitu nit la rek waaye suñu borom defut ci bopp bi xam xam nag dafa yaatu te bari ndax euh, xam bu ne am na la gën ci xam-xam mooy xam-xamu diini lislaam nga xam ne moom la suñ borom wax ne inna diina inda allahi lislaam maanaam diini ji nga xam ne moom la yàlla reconnaître nga xam ne moom la jiital mooy diini lislaam gennaaw lool nag boo amee xam-xam boobu ba noppi nag beneen xam-xam boo am boo xam ne mën nga cee jariñ nit ñi baax na ndax tey jii mën nga ne mboolem jullit ñi ak yi ñu jàppandalal suñu diini yu ci bari am na ñoo xam ne ñoo ko liggéey te ci xam-xam lan ko teg kon xam-xam bu mën a doon rek xam-xam bu baax la buy jariñ la te bari na ci ñoo xam ne yooyu nga xam ne def nañ ko munta ñàkk ëllëg buñ faatoo rawat nañ ci ay jullit yiw wa di leen fa fekk ndax yooyu yëpp day dem ci ñett yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne bu nit ki faatoo ay jëfam day dog ba mu des ñett muy euh, lu mel ne euh, maanaam eh, xam-xam buy jariñ ak lu mel ne nit ki bu fi bàyyee lu mel ne ay xeeti jàkka wala jumaa wala ay forage yu tijji wala ay garab yu jëmbat nit ñi di ci jariñu yiwa da ko fay fekk waaye lu mel na doom ju baax ju lay ñaanal waaye xam-xam it da caay ñëw ca loola kon xam-xam maanaam am na solo munta ñàkk ci nit te mboolem ñi nga xam ne nii ñooy ay boromi xam-xam ak réew yi nga xam ne fa la boroom xam-xam boo xoolee ñoo ëpp lu ñuy génne lu nit ñi yéemu ci lii naka la ko mën a xalaatee waaye ay boroomi xam-xam yu xalaat di jëf rekk la moo tax Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom kenn du moom ci xam-xam waxoon na ne wa man nahaakum ani taalumi fa huwa xalifatul aynil mujrimin nee na képp koo xam ne nii yéen nit ñi taxaw na di leen tere xam-xam nee na kat na ngeen xam ne kooka ku maanaam nit ku kàccoore la teyit nag mën nañ ne daanaka moo représenté seytaan yi ci kaw suus waaw wa man nahaakum ani taalumi fa huwa xalifatul aynil mujrimin mooy représentant seytaan ci kaw suus Euh, ñu waxaat na it képp koo xam ne nii mi ngi leen di tere xam-xam na ngeen xam ne tere googu mu leen koy tere kat ci ak réer la ko teg waaye xam moom kenn waru koo tere kenn rawatina ku jug di ko sàkku ji te képp ku jug di sàkku ji xam-xam na xam ne yaa ngi ci yiw rëy ndax yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam da koo digle woon ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talibal ilmi yastaxfiru lahu kullu saynaatan yataanu fil bahri nee na sàkku xam-xam day farata ci bépp jullit te képp koo xam ne ni jug na di sàkku ci xamam lépp yàlla suñ borom sàkk rek da koy jégalul boromam waaw képp koo xam ne it génn nga di sàkku ji xam-xam na nga xam ne diir bi nga génne ba ni nga delluwaase dellu siwaatee fi nga jóge woon di sàkku ji xam-xam na nga xam ne yaa ngi ci yoonu yàlla wa man xaraja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi loolu it yonente bi sallallahu taala alayhi wa moo ko wax kon xam-xam munta ñàkk ci nit ngir nit ki matal ay bëgg-bëggam ngir nit ki doon nit ku am solo ci société bi ngir nit ki doon koo xam ne nii dana mën a jariñ dara ñi nga xam ne ñoo war a ñëwaat ci kanamam force mu jéem a porter benn xam-xam xam nag bu mën a doon baax na nay xam-xam jariñ rek ginnaaw xam-xamu xam diine daal beneen xam-xam bu nit ki mën a am boo xam ne nii xam-xam ba dana ci mën a jariñ